asalaamaaleykum mbokku téléspectateur yu Tawhid TV daleen ak jàmm ci xibaar yi li ci gën a fës bokk na ci accident bu Sikilo nguur gi jëloon ay matuwaay ngir xeex accident yi njiitalu chauffeur bu garage bu Petersen di xamle ni daañu amal ab ndaje ci seen biir donte ndigal yi moom tàmbale nañu ko accident yooyu lu ëpp juróom benn téeméeri nit ñoo ci ñàkk seen bakkan at bu ne muy am gàllankoor saa su ne ci koom-koomu réew mi collectif bi ñu dippee aar daara yi ñoom bañ nañu ba lànk modernisation. daara yi ak droit de l'enfant bi ñu bëgg amal jàpp nañu ni matuwaay yooyu dafay rekk soxal qualité njàngum diine ci réew mi cérémonie dédicace bu téere bi nga xamante ne waa édition Salamata ñoo ko génnee Oumar Amadou Diong mi bind téere bi ñu dippee tort partagé di yëkkati ay xalaat ci fitna yi juddoo ci wujje fii ci senegal daleen nag jàmm ñu dooree xibaar yi wax ci lu soxal accident bu métti ba amoon ca Sikilo nguur gi jëloon lu tolloog ñaar fukk ak ñaaru matuwaay ngir xeex accident yu ni mel ci matuwaay yooyu nag am na si ay arrêté yu jëw jëwriñ bi yor ngir réew mi tàmbali acteurs yi yëngu ci wàllum transport di waajal ñoom ab ndaje ngir waxtaanee yooyu matuwaay donte ñoom itam teewe woon nañ concert interministériel ya ba ñuy jël ndogal yi ni mel ñoom nag jàpp nañu yenn ci matuwaay yooyu day am gàllankoor ci seen liggéey it ci client yi suñuy ndaw demoon nañ ca garage bu Petersen seeti leen ñu teew da ca seen reportage accident ba amoon si kilo nit ñaa ngay wéy di ci wax ba tey ndax jéye gu mag boobu dafa tax rek lu tollook ñeent fukk ak benn nit ñàkk ci seen bàkkan mu nekkoon accident bu rëy goo xamante ne nii taxoon na nguur gi jëloon fi ay matuwaay ngir rek teg ko ci kaw chauffeur yi ngir ñu gën a mën a moytu accident yi ni mel mu nekk nag mesure yoo xamante ne nii chauffeur yi ñoom fas yi ne nañu cee daje waxtaanee ko ci seen biir donte teewe woon nañu conseil interministériel bi fi amoon. dogal yooyu nag war nañ ko càmbar ñoom. demoon nañ ci nag fekkee nañ ko ba jël nañ fa kàddu sax ndax am waaye nag mbetteel lañ ci am bu génnee day laaj jàngat suñu kuréel yi ñu am yëpp am nañu ay ndaje samedi ak dimanche pour ñu waxtaan ci suñu waxtaanee ba pare nag ci kuréel yi daje noonu war a am samedi ak dimanche ci la ñu mën a tontu ci liñ ci antan ak liñ ci antanul ndax am na yu ne ci biir yoo xam ne damay jafe ne ci ñun porte bagage boobu nga wax noonu porte bagage bi buñ ko ajee xaalis bi ñun ñoo ko doon encaissé mais client yi newoon ci biir ñoo moom porte bagage ñoo moom bagage bi kon ñoom suñ demee ba leen ne bagage bi dootu teg kon client yi ñoom ñoom ñoo bokk loolu wala ñoom sax ñoom rek ñoom la engagé ndax nit ko war a dem moom dina dem moo xamul nag ci jafe lay dem wala ci yomb-yomb beneen bi des mooy Versailles Versailles lu ñu miin la waaye luñ ko miin miin te nekkul ci loo xam ne dafa war a am mën naa am ñoom tam dinañ ci waxtaan. ñu xool ndax dinañ ko mën a dindi dëppoo ak gouvernement wala ñàkk koo mën a dindi pour wax leen ne leen mënuñu koo ñàkk dindi mënu mënu ko cee ñàkk ba bu ne ci waxtaan lay laaj mais benn bu ne ci sécurité routière la jëm ñun nag jàmm moom ñoo ko gën a bëgg ñëpp ndax lu ñëw ñoo ciy jëkk ginnaaw ñaari mesures yooyu nag ñoom chauffeur si jàpp nañu ni ndogal gi nga xamante ni dugg ni na gën a démb mu jëm rek ci tere bus yeeg yi ni mel ñuy daw lu jëm 22h ba 5h du matin dafa nekk mesure boo xamante ni dafay laaj saytu bu baax waxtaan waaye it leeral ci askan wi ndaxte bés bu jàllee jafe-jafe yi dinañ bëri lool. waaw boobu itam ci dogal yi la bokk waaye ci bi gën a jafe ci la bokk ñaar waxaguma lu ñu dogal na ñun sama xalaat rek laa lay wax 22h. oto yi arrêté cinq heures de matin ñu départ wala boo départ woon tey jii cinq heures cinq ci ngoon wala six heures dem sur région di dem ci yoon comme yaa ngi dem Ziguinchor Kolda wala euh, Fouta wala yooyu kon fu la onze heures fekk da ngay arrêté mais ñi nga yeboon noo leen def si onze heures jotee mu fekk la ngumba ngeewul ba mu fekk la Kébémer wala ngaay da ngay taxaw foofu kon nit ñi kon foofu la ñu war a fanaan parce que onze heures ba cinq heures de guddi gi nit ñi kon fu ñuy fanaan kon daal loolu tam bokk na ci loo xam dinañ ko xool su amee nag ba nga xam ne moo am ba mun la ñàkk am bay am jafe-jafe lay doon c'est sûr. reewande chauffeur yi daanaka sénégalais yëpp koy waxtaanee waaye njiital chauffeur ya nekk fële ca garage Petersen jàpp nañ ni reewande amul ñàkk xam rek a am moo tax nag ñuy saytu ci ñëpp ñu gën a encadrer conducteur u Sénégal yi. maam euh, nit ñi kilifa yi wala sénégalais yi moom seen làmmeñ moom chauffeur yi dafa réew moom taq seen làmmeñ waaye nag xamalu tax chauffeur dafa yor métier mbedd li muy def da koy gis mais am na ñu nekk ci dëkk bi di def lu raw loolu waaye kenn du ko gis ñu nag métier mbedd la nu yor lu def danaa fàng chauffeur dafa réew am na chauffeur yu réew te am na ñoo xam du ñu réew ba mu te réew warul kenn kon moom loolu du ma encouragé ni chauffeur dafa war a réew man chauffeur réewul laay d'accord xamul lu ma mën a nag chauffeur xamul man conseil ministériel bi man jëloon naa fa parole mais nee naa nañ renforcer capacité chauffeur yi bu xamul nga xamal ko bu bu réewee nga yar ko boo nee ma xam ne chauffeur bi dafa réew ci formation bi ñoo xam ne kii dafa réew ñu yar ko su fekkee ne xamul ñu xamal ko mais chauffeur dafa réew amul chauffeur dafa xamul laa bëgg a wax nañ ko xamal. ci fàttali nag conseil interministériel bi amoon jëm ci matuwaay yi ñu jël ngir xeex accident yi daanaka acteur secteur transport yëpp ko teewe woon waaye nag ñoom loolu teewul weekend bi daañu amal ndaje ci seen biir ngir waxtaane matuwaay yooyu waaye it ñoom naka lañ koy tëralee ci seen biir ba tey ci wàllu accident yooyu lu ëpp juróom benn téeméeri nit ñoo ci ñàkk seen bakkan at bu nekk mu nekk nag situation bu doy waar buy am ay gàllankoor yu bari ci koom-koomu réew mi waaye matuwaay yi nguur gi jël ginnaaw accident ba amoon ca kilo ndax mën na saafara jee yu nu mel yan matuwaay wala sax yan ndogal la ñu war a jël si dawalkat yi ngir moytu accident yi ni mel ñu teewlu ci loolu tontu économiste bi di docteur Mor Gassama ci téléphone Aïssatou Faye Boutian Euh, waaw accident moom daanaka surtout accident boo xamante ne ay nit ñu bëri ñoo ñàkk seen euh, am ci ay blessés yu bëri donc euh, loolu mënul nekk lu baax ci réew. parce que ña nga xamante ne ñàkk seen bakkan boo ko seetlu ñu si bëri ay ndaw lañ ëpp daanaka amul lu mat ñeent fukki at waa su bëree bëri fa la ne kon ñooñu bu yàlla defoon ñuy kon di dund fii ba ñaar fukki at ñeent am ñoo xamante ni daanaka mën nga traîner ak blessé yoo xamante ni daanaka ay blessé yoo xamante ni daf yëpp ko wax seen xam ne nekkul lu baax ñu a def rek ngir aar ko kenn waru cee hésité jël moom donc lépp loo xamante bi day doole sécurité rek pour man lu baax la mais li ma ci xaw a kii rek li may xamante vraiment convaincre bu baax mooy le fait que ngay jël ay mesures acrobatiques waaw loo xamante toujours sur le coup de l'émotion ndax waroon nga mën a gën a jël sa temps réfléchir euh, voilà après jéem a jéem a jéem a teg sur place bu euh, nekk analyser ko impact yi voilà ci côté yëpp boo pare nag nga doog ko vraiment donc génne foofu moom moo doon moo doon nga wax nga xamante ni dafay jël disposition yëpp pour mën ko appliquer voilà mais boo gisee accident yi ëpp day dafay li koy waral mooy défiance humaine maanaam jàkkay dawal soit da ngay nelaw soit maîtriser nga def soit da ngay dawal vitesse ëpp soit bi ngay départ ba tax na ñoom dawal yi ak ñi moom oto yi xëy na bu leen gën a leen a conscientiser te am ñu wax lu soxal daara yi collectif bi ñu dippee aar daara yi ñoom d'accorduñu benn yoon ci modernisation daara yi ak droits de l'enfant bi ñu nama amal. ci ab ndaje ak taskatu xibaar yi ñi bokk ci kuréel boobu jàpp nañu ni matuwaay yi ni mel dafay sooxal qualité njàngum diini gi ci réew mi te mën na yàq sax internat yi nga xamante ne tëral nañu ko fi ba pare te ñoom itam jàpp nañu ni matuwaay yi kilifa yi bëgg a jël dafay mel ni rek luy xeex diine lislaam ci dëkk bi ñu teewlu ci loolu ay kàddu ustas Makhtar Sarr lan moo tax ñu bañ projet bi lu defaral nu sunuy daara lañ bañ waaye lu yàq sunum njàngale moo nekk ci projet bi projet modernisation des daara dañ ñoo wax ne bu projet bi jàllee pour nga ubbee ci daara ñaar fukki document ak nangam da ko indi pour ubbi daara ñaari document la yoo xam ne ñaar fukki papier ak nangam ñooy nekk ci biir loolu mi ngi ci projet bi moo tax ñu ne ñoo lànk bay ut ko nu lànkale dem na ba ci biir ñu ne nu projet bi bu jàllee juróom-ñetti at dong la seen daara ji yem huit ans du ko weesu maye nañ benn garderie d'enfants nag boo xam ne moo jiitu mais cinq yi ci la ñu tàmbali programme mu daara ji ba treize ans bu treize ans yi matee xale bi moo xam jàng na alxuraan ba mokkal ko moo xam jàng na sariya fa daara ji yam jeex na dañ wax nenu projet bu jàllee yéen ñëpp force da ngeen di bàyyi la ngeen jàngoon am benn programme national bu ñu tëgg ña ko tëgg yéen ñëpp projet programme boobu ngeen di jàngale bu bu ñu xeexee daara mooy xeex diine loolu kay jarul laajte daara bu daanoo Sénégal mooy diine daanu na beneen ñaareel bi li ñu daje mooy dafa am kuréel bu tudd Amnesty International Amnesty dañoo jóg ne dafa am benn code bu ñu defar tuddee ko code de l'enfant bëgg ñu voté benn loi assemblée national boo xam ne bépp daaray cosaan bu daan yalwaan loo say ndongo na dak xale bi dañoo war a fexe ba fi muy nekk lu jëm ci wàllu set loolu baax na waaye lu jëm ci wàllu sanitaire maanaam lépp lu jëm ci wàllu matériel yu lay may pour nga mën a faj xale bi jox ko ay garab daa war a nekk ci bërëb ba ko ci procureur de la république ministre de la justice ministre de la justice ak président de la république waa aar daara ñi ngi leen di ñaan di leen saraxu gannaaw bu nu jógee ko ci daje bi ñu libéré ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Tidiane Seck donte liberté conditionnelle la aar bëgg na donte contrôle judiciaire la aar daara bëgg na waaye nañu ko libeere mu delluwaat heure bu ko ci daaraam heure bu ko yoon soxlaa woolu ko mu dellusiwaat ñu déglu ko ñu waxee leneen laata ñu jeexal xibaar yi cérémonie dédicace bu téere bi nga xamante ne waa édition Salamata ñu ko génnee Oumar Amadou Diong mi bind téere bi ñu dippee tort partage di yëkkati ay xalaat ci fitna yi juddoo ci wujje ci société bi nga xamante ni góor ñi man daanaka ñooy jiite yu bëri muy fësal itam ci téere bi ay fànn yu bëri waaye it traumatisme yi nga xamante ne nii góor ñi itam ñu ngi koy am. ma yaakaar ni téere bi wane na nan nan la Ngari Sall def ba mën di dundeek nakar boobu sans pour autant def benn ñaawteef ndax mi ngi xam le ni euh, bind na ko sax ci téere bi ni ñun góor ñi xamuñu euh, mënuñu natt mitit bi ñuy teg suñuy soxna bu ñu leen takkalee wujj dañoo war a nangu ni mbir mi ñun góor ñi am nañ ci wàll am nañ part de responsabilité ci situation yi soxna yi di wujje di nekk li ma tax a jóg nag ci téere bi mooy fexe ñu soppi gis-gis bi nit ñi am ci wujje déedéet nekkul ni sax euh, damay dëggal wala déet li di polygamie waaye dafa am ay métit ak ay fitna yu bëree bëri yu ci nekk mooy waral yenn saay euh, dangay dugg ci kër ñiy fas seeni kanam ñi boo leen xoolee xam ni am na lu leen metti bëri na lool ay njeexital euh, yuñ ci mën a lim polygamie nag porox ndoll la ci bindkat bi ngir mu mën a wax ci yeneen jafe-jafe yu ci mel ni adoption gune yi mbokk yi lii moo fi gënoon a fës ci ay xibaar sant ak ñeel na leen di sàkku ngeen di wéy di seetaan suñuy programme